ak société civile euh, tënk nañ ko tey ci ngoon maanaam ñu ngi koy mbébét sax laa bëgg wax mooy dialogue boo xam ne ay concertation lay doon nee nañu dañ ciy waxtaane nag lay jafe-jafe askan wi ginnaaw nag après ñu bëgg ci indi ay saafara bis bu euh, jëlee fi kii di président Macky Sall mu nekk benn dialogue boo xam ne ko indi en opposition ak dialogue bi nga xam ne président Sall lancé na ko ak ñenn ci askan wi un mot un commentaire ci li nga xam ne ñoom ñu ngi koy def jamono ji waaw euh, man day duma def lu dul ñaawlu ko ndax jàpp naa ne que mënoon nañu def benn table bu fekkee ne Sénégal moo ñu ñor lii amoon solo moo ñu jël benn table waxtaanee ko. waxtaanee Sénégal ndax mënuñu ko dagg def ko ay pàcc di ko séddale. donc naturellement su fekkee ne ki nga xamante ne moom la waa réew mi fal woote na nañ leen waxtaan. Mhm. li gënoon jekk boo d'accordee ak moom wala d'accorduloo ak moom ndonte moom mandat mi ngi daw ngeen dem waxtaanee réew mi. Mhm. nga ñëw nag kenn neewu la nga ñëw. ci lu mu la wax nga topp ca waaye war ngaa mën a ñëw indi sa xalaat comme ni nga ko defee nii waaye jamono bii gis nañ ne que dialogue bi président initié am dina am débat contradictoire mhm. waaye ñoom seen dialogue bi gëwuma ne dana am débat contradictoire parce que benn sens lay demee mhm. donc loolu rek mooy li nga xamante ne incohérence la incongruité lay mën a doon mhm. mais ñu am yaakaar aussi ne bu ñu fa jógee xëy na peut-être euh, dara dana fa jóge parce que waxtaan bu ne rek dara mën na faa jóge xëy na peut-être cahier de doléance ba fa ne danañu xam fan lañ koy yóbbu. ji mën a am mais justement est-ce que est-ce def na li ko war ba mu sës ci indi table euh, discussion bi parce que euh, nit la koo xam ne euh, il sinvesti beaucoup ci wàllum paix dans le monde alors qu'au Sénégal gis nañ que ne am na ñoo xam ne mënul waxtaan ak ñoom c'est c'est que les gens trouvent un peu euh, contradictoire paradoxal non dañu war a waxante dëgg ci li nga xamante ne moom moo am keroog bi ñu ubbee dialogue bi tout le monde a vu figure yi nga xamante ne nekk nañ fa amul benn pàcc boo xamante ne manqué na ci dialogue bi maintenant su fekkee dafa ñoo xam ne dañu bëgg a def un dialogue marginal c' leur droit le plus absolu mais après nag bu ñu fa génnee ay conclusion ah nañu xam fa ñu koy yóbbu ji pour mu mën a trouver application mm-hmm. wala xëy na peut-être ñoom dañuy réunir pour def peut-être programme euh, politique bi nga xamante ne ñu ngi koy xaar ci ku jegi boobu ba tey te gisuñu ko lu dul woote ay fitna. mais justement est-ce que daje bi du jur benn force politique boo xam ne mën na leen indil jafe-jafe en 2012 euh, en 2024 li tax ma wax 2012 gis nañu lu xaw mel noonu amoon ak le euh, di daje di waxtaan ba mujj gi gis nañu que ne ñoo fi am na opposition jëlee fii le président euh, Abdoulaye Wade est-ce que jàng ngeen ci loolu. man nag sama xam-xam màccul ci gisaane li ma gis daal moom mooy ñi nga xamante ne ñu ëpp ñu ëpp solo. Mm-hmm. ci ñiy doxal réew mi muy ñuy wax les forces vives jamono bi depuis un moment ñi ngi dialogué dans un cadre bu nga xamante ne président de république moo ko initié moo ko woote nit ñi wuy si ko ci.